Amadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf groupe consultatif ga ca Paris tax na waa réew mi rungaloo defi groupe bu tali Paris la France populaire nañu ñoo fa fees dell yëral xët u njëkk journal bi altine tey ji di dajeb groupe consultatif yéen bi nañu altine la ju jara xel altine la jooyu dana jur lu bari ci koomuk Sénégal jur ko ci Macky Sall jur ko ci yoonu yokkute Amadou Ba jëwriñ jaame économique finance ay kàddoom ci xët u njëkk journal bi muy xam le ne mobilisation bu toll nii ko gis njiitu réew mi Macky Sall ma nga fa premier ministre ma nga fa ministre ñoo nga fa directeur général ñoo nga fa diplomate yi ñoo nga fa syndicaliste yi ñoo nga fa taskatu xabaar it ñoom ñëpp ñoo nga ca Paris observateur xam ko foo ko natt na ko réew France dañoo dem ba jaaxle ci délégation Sénégal bàkk na nit ña bare dem sax bay laaj Macky nit ñi ñëpp fan la jëm Macky leeral leen ko leneen loolu it wax na koy gaayam ba mu leer observateur i ci observateur ne dajëb tay bi dafa am solo ne day dajeek dajëb investisseur yi ci le soleil ba tey Amadou Ba ministre économique finance dañu fa gëdd gi Sénégal am ci wàllu démocratie faw décider fi jéego ba mu am ko ci wàllu koom enquête nañu dajëb groupe consultatif ba ñuy amal tey ca Paris fa la Sénégal wékk ëllëgëm la Sénégal ne ko yaakaar yi bari na la ñu yaakaar ci milliard mu war a jóge ca Paris wàcc ci Ndakaaru bari moo tax gars yi tuñ la ñu bu métti ngir mën koo sottal libération moom ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak ñeenti milliards ko am le ne ko na ko ba Amadou Ba jëwriñ gi ñu dénk économique finance ca ndaje mam doon amal ak ngir bëgg investir ci Sénégal Ba da bu dee proposition Sénégal doyle na ci sëkk ki doyal bay goqi fan yii di Amadou Mokhtar Mbow njiital commission nationale réforme institution moo commission BAC liggéey bi ñu def jëm ci joy di banqaasi réew mi ak la leen ca fekk ak la ñu leen ca yàq Mamadou Lamine Loum mi vice président bu commission bi xëy na tubayul Amadou Mokhtar Mbow ci yéen yu bari ñu xëyandol ubbil wal fajri Mamadou Lamine Loum nañu fa cong yi ñuy cong Amadou Mokhtar Mbow yëngalu ko ne Amadou Mokhtar Mbow gis na lu ne ci àddunaam waaye terewul cong yooyee danañ ko dégloog seen ñaari nopp ànd ci ak philosophie populaire nañu Mamadou Lamine Loum leeral na poñ yi nga xam ne leeral na ko leneen lu mu leeral it moo di li commission bi ne képp ku doon jiitam réew amatoo sañ-sañu jiite parti ñu fekkaat ko ci la Sénégal moom Mamadou Lamine Loum mu nañu fa Amadou Mokhtar Mbow ak li ñu ko yàq ci liggéey bi nga xam ne commission ba mu jiite woon def na ko loolee yëngalool Amadou Mokhtar Mbow ne Mbow xeeru wanag la lu ne gis na ko Pape Diop njiital bokk gis-gis ne ñu ci journal bi ni gars yi doxaleeg Amadou Mokhtar Mbow dara ci jekkul ñi jekk-jekk ne ba ñaax ci woon ci société civile bi ñëpp xam leen ci ca ñooñee xëy journal bi xamal ñu ne politique bi mëdd na société civile gi yéenekaay bi xëy ko boole nataal bokk na ci bopp Alioune ma jiite woon rado bokk na ci bopp Penda ak bopp taskatu xabaar ba woon di Abdoulatif Coulibaly beneen taskatu xabaar bu nekk ci politique bi te nekk ci observateur moo di Alioune Ndiaye Alioune Ndiaye mi nekk ci fekkee ma ci boole te mel ni ca bokkatul léegi xëy na leeralal wàllu observateur li ko ci taxa selenglu ba jamono ji néewu ci direct info eh, nañu ba léegi ma nga ca Paris la France ñibbiseegul te it am na ñuy wax ne moom Idrissa Seck te France ga mu nekk woppa ko fa tëye di feebar feebar bu garaaw moo tax boobu ba léegi Idrissa Seck ñibbisiwul dafay fajoo booy ñang fat na dofub caaroy bi maa nga ca lamp ca populaire moo ko binde noo ne a bi nañu ci ñetti minutes la booy ñang daan bàyyi ma njond le quotidien nañu booy bi màgg na observateur ne ko jugaat a kaay nañu a jëm laa si nekkaay nañu waxal na ko boppam ne bi mu daanoo ba jëkk li mu wax moo di woroti nañ ma damay bàyyi lamb li mu wax moo di woroti nañ ma damay bàyyi lamb ki dul bàyyi lamb di Boy Niang mi ko daan a di dëggal nañu ci sunu lamb jamono ji Boy Niang ki mu soxla moo di Zos Lac de Guiers 2 wala bokk menuisier bi Modou Lo